Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Beklen Beklen ak ma comme tous les samedis à partir de 17h sur la RTS1 muy la chaîne leader jaajëfal gaa ñu donc à chaque fois ci euh, réomik c'est vrai que nous sommes regardés en clair et en haute définition donc euh, partout dans le monde Les demee États-Unis gagnent cette année de nous à chaque fois donc euh, Australie Chine Japon partout en Afrique également Nous ngeen demee Gabon surtout de am retour bari côté Gabon de nous également sénégalais yu Gabon Côte d'Ivoire partout nous ñu année à chaque fois donc à cette heure là di leen jaajëfal ci taamu

biir sen sine ak Khadija mais tamit euh, mode des tendances tout ce qui est mode fashion donc dañu ci ak Eva ci kanam touti avec euh, son invité euh, waaye tamit bu len faté suñu rubrique bi nga xamante donc mom moy dalen ak jàmm c'est là où je reçois les grosses pointures de la musique sénégalaise tey nag man plaisir di dal donc un groupe mythique hein, donc dañuy bagn groupe nak mais c'est un groupe pour man parce que nak à chaque fois depuis le premier album ba deuxième bi yëpp sénégalais yi dañ len di bàyyi xel donc dina dinaa leen dalal donc ci biir émission bi nga xamante moy beglen mais tamit toftal ci également ben légende bo xamante donc il fait du hip hop du rap sénégalais yi xam ko avec son fameux single bi gënon à l'époque donc euh, mu ñëwaat également ak un nouveau single ci kanam tuuti lay doon mais tamit pour boucler cette émission dañ koy dire à chaque fois ak suñu rubrique bi nga xamante moy rebattas, tas ma ci andak ak cukku pour euh, décompresser tuuti donc suñu mbokki ñu seetaan euh, comme tous les week-ends ay c'est parti dans un instant dañuy démarrer ak suñu rubrique bi nga xamante donc mon moy découverte c'est parti su découverte nag tey damay dem ba Podor hein, donc euh, côté nord du Sénégal jëli Ben jeune boo xamante ne donc euh, c'est un jeune euh, artiste donc vraiment pétri de talent donc il a sorti un nouveau single déjà single bu nice donc bu tudd wondeelu xaw ma nag kan la bëgg wondeel foofu waaye dinañ ci dans un instant pour la suite donc muy MD ah MD nordiste. ñu ngi lay siyaar bu baax. maa lay Ndiak. mu ngi oui, ça va tranquille. Nous avons eu cette émission, il y a partout dans le monde. Oui, hein? Ouais, bon. Hmm. Avant tout, euh, tu me permets de rendre hommage à un ami. Bien mm. Euh, il faisait partie euh, de mon staff euh, pendant cette organisation. Il a quoi. Donc, de Kanyanal, il y a le souf, c'est de Sikao. Amin, amin, Le frère Sidy Diagne, quoi. Amin, amin, amin. Voilà, à part ça, je les de le remercier. Wow. De nous, de nous, de nous à Sénégal, de nous à Fouta.

Diva dëgg naa wër nga télé yëpp mais yaa ngi ñew télé fi moy télé nak HD nga laal <laughs> nuyul waa Sénégal asalaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum bokk diaspora ma ngi nuyu ami téléspectateur bu euh, RTS mhm. nga xam sa émission bi dañ koy suivre depuis la France donc euh, ma ngi am mbégte ak kontaan te tey fi d'accord plaisir partagé en tout cas dina ñew dans un instant mais le temps que may ñew ci euh, rubrique découverte may nuyu également Mina Khatab mo ñu jukki lépp luy xibar jëm ci célébrité yi donc Mina maa je suis ngi hmm? de de ziar. encore une fois si ñi nga xam ne ñoom ñooy chaque samedi 17h. kono noon mi tikkini invité ma o par que wona an tan woni ga haalpular ah minene komi haalpular ah donc euh, minene mi salminima haysa salminani kam neɗɗo ko bandum eyyi eh, ah, mu ngi noonu mu ngi noonu en tout cas dañ lay denc ba ci kanam yi na ñu mm, naa yaa ñuy jukkee lépp luy xibaar jëm ci maanaam des infos sur les célébrités donc ci kanam tuuti maa ngi koy wax sànq donc Ngo La Diva donc avant tout euh, mais boo demee gis gars yi album benn ñaar ñett bu def euh, preuve yu ngande dogo dogo dogo wax La Diva mais yow salaamaaleykum nga ne Ngo La Diva Pourquoi ce nom déjà Moi, ça fait 20 ans que je chante. J'ai mm. fait du rap, mm. reggae, j'ai fait pas mal de pays euh, dans mm. la sous-région comme Bénin, Gabon, Côte d'Ivoire, Nigeria. Euh, Des Django d'Ouest, j'ai beaucoup appris la musique, que ce soit dans toutes les tonalités, pour pouvoir être euh, un peu plus free dans la musique international. Mhm. Du coup, je fais du ballard, euh, afrobeat, euh, reggae, je fais de tout. Toutes les sonorités Voilà. Mais pourquoi 20 ans de carrière à Mogo 20, 20, ans, de carrière déjà chez ces... Parce que je mhm. faisais déjà... Au départ, je faisais des karaokés, donc mhm. je travaillais dans des, dans des hôtels-restaurants en tant que... Euh, je faisais des interprétations comme karaoké. Et puis voilà, euh, ce que je mes, dans mes, dans mes en plus le fait que je n'étais pas au Sénégal aussi, de jouer. Mhm. Donc là, euh, je ne voulais pas aussi me mettre devant de la scène et puis après, du même contenu vous me présenter. Mhm. Du coup, le job du Yamboul, comme tu du coup, comme maintenant. tout à fait. Au nouveau single officiel que tu as sorti déjà, donc, Dupeko, président Macky Pourquoi ce choix, Djeki porté ko ci président hall, euh, nga ne damay woyal président dam koy euh, bindal ben way damay concentré wu génnal ko ben clip et tout mu nekk lu nice tamit euh, pourquoi d'où vient cette idée parce que le morceau s'appelle Merci, mhm. président Macky Sall. Parce mhm. que euh, mon mhm. bëgg juste sénégalais et que nous ñu nekk confondre un chef d'État et un chef de parti. Et comme euh, on lui doit du respect, et il a, il a fait pas mal de choses au Sénégal. Il y a 20 ans, si on m'avait dit qu'aujourd'hui Dinam Terre Sénégal, je vais, je vais pas y croire. Donc le minimum, c'est un merci. Et comme n'est pas souvent les Sénégalais le disent, ben moi, j'ai pris mon engagement personnel pour lui dire merci. -hmm. En tout cas, c'est très important. y a terre En tout cas, c'est vrai que nous avons train à Paris et c'est donc ah donc avec une fille, c'est pareil hein. C'est pareil. Et puis ils sont très bien, ils sont moins nice, ah, Et puis j'adore bien euh, quand, quand quand ça dit euh, Exingen Pekin. Oui. il y en qui Tu as, déjà pris le, euh, le n'ai pas encore pris, je ah. viens le prendre. En tout cas, nous nouveau single intitulé donc Merci président Macky Sall. Donnez-nous dans un instant en prestation playback. Euh, MD, Nordiste. MD, c'est les initiales de ton prénom et nom. Ouais. MD mhm. Nordiste. Euh, Nordiste, ça veut dire euh, le nord du Sénégal. Voilà, le nord du Sénégal. Ah bah, c'est Waouh, MD, MD Mundaga, Mansour. Voilà, parce que mes deux noms, c'est M. Le mm c'est Jabai. Du coup, Nordiste, voilà, ça ma identité. Là, quoi. Je viens du nord, en fait. D'accord. et ça c'est ton premier single officiel Tu tamit nga un single officiel depuis que que Day Wondeelu One Youssou Ndour woyoon euh, c'est en remix ou bien juste nom bi croisé. non nom bi croisé mhm. parce que je suis un artiste, tu mhm. vois parce que moi je fais de la musique je fais tout en fait. ok du coup voilà ça m'est venu comme ça après Je suis c'est mon ingénieur de son bi. Mhm. Zoom on the beat maa deux de passage Moi suis jox rek comme ça après je suis inspiré Wondeelu.

fit. Terima kasih banyak untuk MD parmi nous donc dans Begleen Tibir biir découverte donc c'est vrai que c'est un nice hein. donc euh, MD wondeelu mom affaire de. <laughs> waaw koy wondeel foofu noonu. xale bi ngay wondeel wala soxna si. <laughs> non pour ñëpp ah. ah. pour ñëpp <laughs> wondeel soxna si yàqul dara de. voilà kep nga ah. xamante sa xol neex na rek wondeelul quoi. ok ok kan moo def taasu bi non maa ngi deug taasu bu nice ci bir Almada voilà je lui salue de passage. Mm-hmm, mm-hmm. c'est un cousin voilà il est dans le milieu aussi. ok ok parce que c'est un griot je suis griot mm-hmm. aussi moi je suis griot donc du coup mon mu Arbi, voilà après cela là que xëccee mm. daal man ko mm. boy kaa ñu mm. def affaire yi daal mu gëna nice quoi ah, en tout cas son bu nice on te souhaite une très bonne continuation dina ñëwaat ci projet yi dans un instant donc Ngor Diva man ngi koy wax sank yow tamit euh, tu as sorti un nouveau single intitulé euh, merci président Macky Sall donc euh, ci ko loolu sax damay nuyoon tek sama yaay Mariam Faye sama yaay la <laughs> sama yaay bopp daf ñuy seetaan daf ñuy bégee maa koy nuyu di kontaan ci mom nan ko yaay boy yalla sa jamm yag ñu ngi lay bégee di la kontaanee bu baaxa baax euh wax nga sank choix bi tax nga woy président donc da nga gis euh travaux yu mu def

kontaan ci moom et puis gis nañu liggéey ngay liggéey ci Sénégal ñu ngi lay bëggee donc bëggee bu baax tamit euh, suñu xarit donc euh, Mame Boye Diao Mountaga donc euh, suñu DG yoy di leen souhaiter manam un bon weekend. end ayca xam nga maa ngi koy wax sank bëgg leen waxtaan la prestation playback la sénégalais dañu yàkkamti nak xol lan nga gënël pour président ñu mayee ko fii daal di ñëwaat dans un instant hein. c'est parti Ngo la diva donc euh, très belle chanson Ngo La Diva hein, président Macky Sall donc euh, xam naa Mawo Diouf DG Mawo Diouf fa recevoir le yóbbu ci président Macky Sall parce que mon moom est woyal way hein, donc euh, moom mon allah moom muy tourisme fii ci Sénégal gis naa nga woon site touristique yu bari ah site euh, touristique yu bari donc. ay on a montré toutes les réalisations. Mm-hmm. parce que damay faral di wax ni par exemple un président de la République malgré que. Mm-hmm. def moom moo. Mm-hmm. postulé pour être président de la République mais aussi sénégalais il faut ñu xam il a laissé beaucoup de choses. pour être président. c'est ça Amna na yu bëri yoo xamante ne mënatoo ko def boo nekkee sax euh, mm. nit ko xamante Deug la. Euh siw nga. Mm-hmm. wax ma la nga nekk kilifa rew do to dootoo def yenn plaisir ak sa njabot. Deug la donc se sacrifier loolu pour defal. ñu même bu dee fu ne ngay mën dem quoi. waaw du fu ngay mën dem. Ah, parce que dëgg la ay mbay. waaw nga ne Mina. xam kan mo réaliser clip bi ndax clip bi nice na way bi mom waxatuñ ko dañ koy tek de côté mais dañu jël xale bi dakk fecc instant bi muy Awa Banaya mu fecc ci clip bi euh li lima ci jaaxa rek fin bi tëggu séeréer laa laa dégg dégguma tëggu tukulóor loolu day waral ni séeréer yi ñooy buuru tukulóor yi wala nu mu demee <laughs> non dafa war ne Sénégal ñu ñëpp benn lañ ñoo a nekk benn parce que tey mu mm. même su kii su faralee kii ma faral kii war nañ mën a nekk ay gaañ war nañ mën a bu ñuy bu ñuy bu ñuy waxtaan xol yi war a bañ a jóg parce que mm. Mm. il faut qu'on revienne un peu en arrière avant jàmm dafa bari woon Sénégal te léegi jàmm dafa xaw a dafa xaw a compliqué donc il faut que ñu boole ñëpp waaw en tout cas c'est très important en tout cas merci beaucoup Ngola Diva merci également MD dañuy nuy xaar ak ñun ñu ñu ci projet dans un dañuy ak rubrique Actu Star tout ce qui people dama ci ànd ak peu ay ci Mina ma delluwaat di bu baax di la je maa ngi lay fay bu baax di la ziar. info yu fresh yañ koy jox à chaque fois wa ma len koy jox tay fa ñu yobu tay tay nak dañuy ñew ci li nga xamné né mo la mbay jamono essan bi kan kan moko gëna nekk staff ci ci ci planète bi kan la ganagay waaw ndax tay mëno tijji fen te te dogo turam muy tweet beex facebook réseaux sociaux yépp la la mëna wax donc mm. Euh, xam nga le 17 mai. mom mo nek euh, journée mondiale contre l'homophobie mm. la transphobie ak li nga xamné mom moy mooy biphobie ñu bari nak euh, xamuñu déjà lan moy LGB LGBT. Mm. donc LGBT L bi déjà mom moy lesbienne. Mm. G bi moy gay. B bi moy bisexuel. T bi moy transgenre. Mm-hmm. donc le 14 bi ñu weesu ni moom la Montpellier doon jouer ak li nga xamné ñom ñoy PSG. Mm. donc nag ñu waroon jouer aussi euh, ak couleur yi nga xam ne moom mooy couleur LGBT. ok pour magal pour magal journée bi quoi. waaw donc pour xeex ñi nga xam ne dañuy dañuy joxoon ñooñu baaraam. Ah. donc ki nga xam ne moom mooy Gana Gueye euh, joué wul. Mm-hmm. daaw joué wul mais ren aussi joué loolu nag. Euh, indi wax bu rëy ci ci monde bi yëpp gars yi di ko di ko taxé doomu foofu ak lu ne mm-hmm. mais duñu wiiri wiiri ñun amna ko xamné bu génné rek doy nañu donc bu nopi won peut-être mu metti ñu muy ki nga xamné mom moy mooy suñu président Macky Sall mm-hmm. bi ñëpp di ciow ñu naan du wax dina wax mom mo génné def tweet mm-hmm. euh, xamal nañu mom mu ngi mu ngi soutenir ki nga xamné né mom moy mm-hmm. euh, Idriss tweet baa ngi euh, je soutiens Idriss Gana Gueye ses convictions religieuses doivent être respectées donc loolu message court mais fort fort mm. pare guñ ci lolu ki nga xamné né mom moy mm. le ministre des sports Matar Ba mm. ñëw wax sénégalais yëpp aussi ñëw wax

mais c'était juste pour def ko clin calendrier pour wax ko ni mhm. Sénégalais yépp ñu ci ginnaw en tout cas il a signé un contrat pour euh, faire du football mais pas pour euh, défendre ay euh, drapeaux. wala GPT. LGBT dañ koy défendre hein, donc euh, c'est notre fierté nationale. donc mm -hmm. Gana Gueye on est tous derrière toi comme il a fait bien sûr le président de la République. donc def fait tweet tweet mhm. hein, donc ngir rendre hommage ñu tamit ñu koy rendre hommage. hommage wax on est derrière toi. et puis c'est pas la fin du monde bu ragal dara gaynde du ragal. bu tiit bu xof bu ragal. كان دول حقوق قتال on est là

On bu ñu jógee ci Gana Gueye dañuy ñëw euh, ci li nga xamné mom moy 14e édition bu euh, biennale mm. de l'art africain contemporain xam nga mm. né waroon na am depuis 2020 mm. mais ak euh, kii bi Covid bi mo taxone ñu repousser ko donc euh, Sidiki Diabaté mom euh, bokon na ci artistes yi nga xamné ne ne. voilà presté nañ si si si jour euh, ouverture bi. Mm. mais li ci gëna am solo njaag xam nga souvent dañuy wax musique day bolé mm. dara mën na yàqu musique yàq ko malgré ambiance bi ak yépp téye na kooraawam jàkkaarloo ki nga xamné ne mom moy son excellence monsieur le président de la république Macky mm. Sall xamal ko né dafa bëgg lepp ñëwaat dans l'ordre

Côté des infos fraîche ak Mina Xatab ci biir beeg leen après foofu ñu dem fan. bu ñu fa jógee dañuy ñëw ci ki nga xam ne ne moom Pape Sidi mm-hmm. Pape Sidi Fall fan yi dafa jël euh, reprendre benn photo boo xam ne gars yi dañ ko doon partagé. Mm-hmm. mu jël ko def ko ci Instagram am donc dafa am benn vidéo bu circulé fan yëpp ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ay agresseur yu topp nit ba ci biir këram. di pour euh, jël li nga xam ne moom mooy scooter bi donc mu am benn photo ben xalé bu goor bo xamné gaay ñu ngi koy partagé ñu nane agresseur bi alors que c'est c'est pas lui donc fami xalé bu goor bi nak mo génn di léral di wax euh, fee yooyu bi mi am déjà xalé bu goor bi

après nga reprendre que alors ngi dugg en plus c'est des influenceurs donc nañu nañu mën na yàqal ñu bëri seen dund c'est pas facile mbala moom mbalakat la la quoi donc euh, voilà mu ngi noonu ay ci gannaaw foofu ñu dem fan bi naa gannaaw foofu dañuy ñëw hmm? ci euh, dafa am koo xam ne dafa buggoon tëgg euh, combat de lutte entre ki nga xam ne hmm? ne moom mooy euh, Pawlish mbay ak Mbaye bu Kouthia hmm? xam nga ne Mbaye bu Kouthia moom aussi léegi animateur la mu ngi ci benn télé donc moom dafa toog en direct ne moom dafa décliné li nga xam ne ne moom mooy avance bi parce que dafa dégg ni ki nga xam ne ne moom mooy Pawlish dañ koy taxé de ñaari tour ci en direct Pawlish fa la ñëwee dóor ko dóor yu metti ah oui ci plateau bi voilà ci plateau bi. ah oui échange yaa ngi nii. yaa en direct taal otom ñëw. non non moom muy woon ci émission bi déjà ah oui muy woon ci émission doon na ko nag ba gaañ ko mais c'est grave voilà démb aussi euh, Mbaye posté na benn vidéo mu ah. nekk à la gendarmerie pour wane ni moom aussi dem na pour porter plainte ki nga xam ne ne ah, ci nos émissions dérive souvent day am ci émission mais franchement moo tax direct yi en direct yi émission direct yi foog ñu éviter quoi franchement donc euh, je vois toutes les émissions wala mu nekk responsable ah, boo ne mu leen ne lii du am

dafay dem à l'encontre de li ñuy wax ci plateau bi donc moom dafay comme li ñuy wax Sénégal yi moom donc des fois da ngay gis ku nekk ci plateau bi mer hmm. donc euh, mom aussi wonone am koy koy taxaw ah, tout à fait mais ruube aussi dafa am fu mu yem doo dugg ba ci vie privée nit yi hmm. wala di teg ah. nit ci loo xam ne lenn la wóoru la wala gisoo en tout cas loolu kenn du ko kenn du ko tuumal nit ah c'est c'est c'est surtout loolu wóorul aussi hein donc euh, donc c'est important aussi hein mm-hmm. en tout cas mu ngi noonu donc ARTP mu ngi xool gendarmerie mu ngi fii en tout cas dañu xol top mm-hmm. information bi xol fa lay muju inshallah après ginnaaw foofu mi ñu dem fan. Ah, dama lay indi ñaar ñaari carnet rose. Mm-hmm. Ah, xam nga ni ki nga xam ne ne moom mooy Daaro. Mm-hmm. nekkoon ci dina ma neex. Mm-hmm. donc euh, actrice la déjà. mais mu ngi doon continuer di jouer li nga xam ne moom mooy série incarné fa aussi ki nga xam ne ne moom mooy rôle jigéen bu wërul ñu bëri yaakaar ne nag ci film bi rek la alors que. dëggantaan yaay mu ngi ko doon incarné mais euh, yàlla def na si jàmm wasit na si ah jàmm. voilà démb la doon tudd. donc euh, ñu ngi ñu ngi koy ñaanal moom ak doomam comme mucc na ci jàmm. Aïcha voilà Daro dina ma ñëw Aïcha mu ngi noonu donc euh, le dernier virage pour Actu Star ak Mina fu ñu dem beneen carnet rouge bi nag mooy ki nga xam ne moom mooy Rihanna hmm. ndax nag enfin euh, enfin nañ ci de ah? ah, bu gën a siiw ci monde bi ah, mooy bësu Rihanna a mais bi mu wasi xam nga ne tamit toog nañ lu yàgg kenn yëgu lu mu am ça veut dire que lu ñu bëgg mu nëbb rek dina nëbb lu mu am am na doom bu te depuis le 13 la am doom ok ba ko yëgee déjà ok Ok. Voilà. Donc, en tout cas, nous sommes donc, nous sommes c'est c'est des stars mondiales, mm -hmm. donc euh, des grosses pointures de la, de la musique mondiale, hein, on dit. Comme annoncé, on est grosse somme, donc comme Amna Dom, fallait que nous nous voit annoncer quoi. Aïe, donc, nous ne pouvons jouer ni à demain les derniers clips. Déjà, ben le bim oui deep, nous mhm. nous jouons gagner à la une des tendances sur YouTube et sans bini. Nous tous des que. On peut inviter, tu numéro de nous, donc tu veux bien aïe, genau. Ah, nous pouvons jouer ni à gâteau, ni à qui nous avons des moments d'ajout. Nous gagner aussi l'obès, tous des que l'ambassadeur. li ma ci gën a neex nag daf ci woy ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, suñuy champion d'Afrique yi ku ci mel ni Sadio maane ak Gana Gueye mu hmm. woy leen ci woy bi donc muy son bu nice ak vidéo bu nice bi nga xam ne moom mooy accompagner filmam hmm. bi nga xam ne moo waxoon génn hmm. mhm. en tout cas il est à moitié sénégalais hein. donc dafa bëgg Sénégal drop, donc France donc euh, personnellement Dakar on s'est croisés. Mm-hmm. j'aime bien le Sénégal donc euh, j'aime bien le Sénégal j'adore le Sénégal c'est presque mon deuxième pays ou le troisième pays ça donc euh, après Congo France donc bëgg Sénégal trop Sénégal avec des grands événements mm-hmm. encourager un bon week-end Aïcha ñu lay bu yalla may ko tan ndax fan yeb ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux wala ah da feebaroon subi na déjà mm-hmm. opération mm-hmm. ñu ngi ñaan euh, yalla mm-hmm. délo ko ci njabootam di gërëm euh, Binta bi nga xamné né ne fan yi moom moy jaar ci bop bi ak ci kanam bi numéro bi 78 282 73 45 merci beaucoup merci Mina pour Actu Star donc rendez-vous samedi prochain ci beneen numéro Aïcha dañu tàggatoo donc ak seen ay projet yu gëna taxaw donc Ngoola Diva lan mooy projet bu gëna taxaw ginnaw single bi moi je dama damay waaj euh, le retour de Gola donc je je suis un installé au Dakar. mais tu as joué tey ci Oui, war a joué. oui on concerts joué si concert. Samba Peuzzi et Deep. donc voilà et voilà son projet est installé au Dakar. En plus d'y jouer tous les mercredis ou tous les week-ends ou quelque chose comme ça. Euh, gën ne fësal li may def. Sénégalais gën ko xam. voilà mm. quoi am na solo en tout cas on te souhaite une très bonne continuation. donc euh, bon va xam naa prochaine fois boo ñëwaatee ñu dajawaat. waaw wala bu ñu bu ñu ñëwee Paris ñu dajawaat foofu. incha allah defaat yeneen tour yeneen émission ah. ok ay ci MD merci yow tamit lan mooy projet bu gën a taxaw actuellement. oui bon. Hmm? là là actuellement. je suis hmm? dans un projet boo xamante ni def nañ section. Hmm. frise et tout. avec mon manager. Euh, Papy Nordis. de le salue de passage instant bi nii bon parce que dama bëgg jouer ma identité aussi quoi. ok ok boo bi <laughs> en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir di la euh, maa ngi lay y' a pas yaram bee tàng rek rek. y' a pas ay je disais que ça a été un plaisir d' une petite ci première partie émission l'émission. di euh, je vous accompagne avec le nouveau avec le nouveau clip donc de Diamond Express donc à un moment nous allons ko daal dans un instant pour la suite c'est parti. Yaman Express donc boobu nekkoon aw ben benn c'est vrai que nous ngi xaar clip bi depuis euh, longtemps mais gën enfin avec beaucoup de vues sur YouTube ah na gars dem xooli waat ko maa ngi remercier bu baax a baax donc Awa Syll ki nga tenue bi à chaque fois donc nous ñuy habillé di euh, Walo Couture ah Couture nag ñoom ñu ngi fi nga xamante donc moom mooy euh, rond-point Dominique donc chez Walo Couture da nga fa fekk Pape Moussé bu ngeen tenue africain et nice yi donc ci été bi mën ngeen commandé seen tenue à travers son numéro à l'écran donc ngeen woo ko commandé seen tenue fu ngeen mënta une livraison à domicile ah maa ngi bu baax vraiment vraiment di kontaan ci moom di souhaiter un bon week-end ayca bu newee ba tolo fi nak ci biir émission bég leen xam ngeen dañuy enchaîner ak suñu rubrique bi nga xamantene mom moy scène ciné scène ciné nak dama ci ànd ak Khadija Khadija ma wat di la bëggee di la wat di la kontaane di wax nak euh, à chaque fois ya ñu indil acteur yi gën nak au top donc ci walu série fi ci Sénégal. voilà mon frère man tamit amana naa mbégte di ànd ak yow chers téléspectateurs ravi de vous retrouver dans votre émission bég leen. Mhm. waaye seen rubrique bu mag di ñuy wax ñuy wax seen ciné. xam naa ci kanam tuuti ma a yaatal ay ci mu noonu mu toftal ci également Eva moo defal mode des tendances tout ce qui fashion ak yooyu donc des fois styliste ah, ñi def design ah des fois mannequin yi miss yi tatoueur yi bàyyiwul rek ah, yaa ñu koy indil ci biir ah, beeg leen Eva nuyu naa la exact Ndiak maa lay fay bu baax sama frère amaat plaisir rek partage ak yow nga xamante ni moo plateau beeg leen di nuyu ñi nga xam mu ngi noonu donc seen si ne donc Khadija tey nag nga indi invité boo xamante ne macha allah xale yi bëgg nañ ko ah donc mu ngi au top actuellement boo xoolee série boobu tudd infidèle mu nga ca ak yeneen. dafa mel ni yow rek. <laughs> voilà Ndiaye comme ni nga ko waxee. waaye ni ngay def ah, ah. <laughs> ay ci nuyoo présenter sa invité. voilà <laughs> euh, tey nag damay dalal ku ñuy wax Xos Saasi Diop. Ah. mu nekk benn artiste comédien. Xos mhm. dalal ak jàmm ñuy kontaan sa teewaay ci biir plateau Begleen.

bon est ce que dem ci ah. neex voilà comme euh, Diop euh, de son vrai nom mu artiste comédien. Mhm. il a joué dans Idole Infidèle long métrage bu ñuy wax il est également responsable du casting Evan Prod bala may def dara damay au niveau de la régie. Mhm. extrait Infidèle sur le plateau <laughs>

Evenprod Ibou Guèye mhm. di di ziar wa waa Evenprod yep mhm. donc yoon la rek est-ce que la quoi est-ce que le destin là, donc xam nga jaar jaaru àdduna la donc

donc il faut il faut ñu à surtout il faut il faut mm-hmm. parce que mm-hmm. marché mm-hmm. carrément les proposer et puis fait la la non mais société le Sénégal <laughs> voilà euh, euh, voilà vu la tendance actuellement on a vu que presque toutes les filles.

Elimix lay doon quoi. tu vois. pos yow <laughs> nekk ah. benn maison de production bi nga xamante ni. Mm. askan wi léegi sax dañ di faral di ci yenn scènes yi nga xamante ni da ngeen koy faral di dawal. Mm-hmm. yi nga xam ne tegginewul tey en tant que directeur de responsable de casting lan nga mën a wax ci loolu. Event Prod université la. Event Prod formation la soo xoolee Event Prod ku nekk fi nga jógee Event Prod nu muy formé. Mm. amul gis nga. vigile bi ba directeur bi. Evenprod ñëpp la ñuy laaj conseil. tout à fait So xoolee Evenprod lu muy lu muy lu muy dernière yu xew si talaan bi yëpp. Mm-hmm. tourné nañ ko. c'est vrai même Jabar buy daw RTS fi déjà. Jabar c'est la réalité infidèle société Sénégal ah, si. donc mm. xam mm. société bi. Mm. lu société bi di dund la ñuy def. tout à fait surtout njabar ah. dëgg la li société bi dund ngeen def doo fi toog te duñ la laaj loolu. Mhm. Euh, ñi gis ni léeg saa am na si seen yenn seen yi nga xamante ni boo toogee sa papa wala nga toog ak sa yaay léeg saa day xaw a metti pour nga mën ko seetaan loolu aussi est-ce que mën nga si indi ay leeral parce que aussi yow yaa fa nekk. non mais xam nga xam nga déggoo mën a euh, euh, cinéma du diine message la mm-hmm. message booy joxe jarul jarul ngay tourner autour du pot mm-hmm. parce que avant am na ñu indi woon seen ay culture jële jële ko étranger indi ko Sénégal ñu accepté ko tu vois mm-hmm. donc mm-hmm. ñu accepté ñu accepté lool mais mëno mm-hmm. di joxe message di nëbb lii di neublé lu xew société bi ngay génne quoi tu vois c'est jaratul ñuy tourner autour du pot si côté cinéma ok ok ok c'est important mais yeete la rek quoi euh, film yi souvent duñ la koy ah, nangu voilà Khadija si si si si tu le permets aussi bëggoon naa xam aussi euh, rôle Toumani ça m'a marqué déjà c'est un peu comique man su ma doon série surtout saison 1 bi daw ma raté peut-être 4 bi du matin 5 heures du matin. Mhm. damay suis géej ba six heures du matin di jàng. ok parce que dugg si personnage yu Toumane c'est pas facile. c'est pas facile Je téye valise ba géej. ah oui ouais, comme ça Toumane c'est un gars bon matin il a rien dans la tête. <laughs> tu vois tapette le parce que nous nous nous muy nu mhm. Tonton Souleymane. Mhm. Euh, euh, Bouba. ak nu muy joué copine mi. Hmm. benn gàncax bu ngaaka la. waaw donc il faut muy rey yaram bi. day tëdd xam nga waxin bi mais waxin mais waxin bi waroon waroon na am beneen langage ay eh, billahi barkëb sëñ bi buuba man loolu ma mënuma ko pourquoi pas langage yooyu en tant que kaw kaw ku dëggul daaj ku jëgg dëkk bay ñëw seet si nijaayam pourquoi pas langage yooyu noonu parce que da nga ñëw andi langage yu nandate aussi ci biir série bi waaw mais parce que wane wuñu tumaane jóge village ba ñëw moo tax warul waxee noonu tumaane dañ ko wane mu nekk parce que soo xoolee tumaane hmm. buubaa la woon ok buubaa tumaane la woon ok parce que jarul ngay xol parce que bouba so xolé setu tumane la. d'accord lu lu tumaane di dund nii buubaa dundoon na ko. mooy coach bi voilà. waaw <laughs> mooy coach bi ay ci muy doon xos euh, jotul euh, yéen waa Evon Prod ngeen yóbbu seen yenn acteurs ñu gëna jang jàng hmm. pour plus de professionnalisme. wala wala bokk yéen a ngi koy def. si hmm. parce que so xolé nan lay Prod hmm. amul ben acteur bu joggé benen maison ñew ñu ne kii lu indi fee la indi fee. par exemple bouba Edu. Mm-hmm. Si ñu ngi ci maison. c'est vrai en tout cas moi je le dis pas comme ça hein. franchement fréquente naa leen. Mhm. même bu dee trois quatre fois. Mhm. mais franchement c'est des professionnels. une façon nu ñuy defee seen casting. Mhm. façon bi nga accueillir ak fi ngay jaar commencement bi fi ngeen boo ñu lay jëlee ci série ça pour nous jouer ça tout ça c'est franchement c'est des pros. mention spécial. bu label yëpp mel non, wala maison prod yëpp mel noonu franchement mention spécial à Event Prod waxuma ko parce que da nga toog. dem ko dund ak ñoom. ma gis quoi franchement vous êtes des pros. et puis bon, les série yu ñuy def tamit la plupart comme Jabar maa ko sànq Njabar série parce que la chaîne nationale mais Njabar c'est la réalité sénégalaise donc donc donc euh, da ngay dund dund Sénégal et série la boo xamante ne waa diaspora bëgg nañ ko trop bu dawul woote allo eh Njabar lu ngeen xaar pour Njabar <laughs> euh, <laughs> parce que machallah vous avez tapé encore fort mais nan ngeen tamit Khadija nu ñuy tamit série yu yooyu parce que euh, infidèle mu ngi en cours de dow mm-hmm. ah, nga bëgg tourner Njabar mm-hmm. bëgg a voilà naka ngeen di allier tournage yooyu yëpp. waaw mais comme lu ma lay wax mooy que da ko dañu tarbiw hmm. xam nga si li nga nekk rek. Hmm. parce que soo xoolee même équipe bi la. Hmm. journée bi day am par jour dañ koy programmer. ok waaw dañ koy dañ koy dañ koy. dañ koy euh, programmer dernière question mais le temps bi xod nañu. tay xos vu ñi nga yëgalee les échelons tay ban conseil nga mëna jox euh, ñeneen ñi nga xamante ni bëgg nañ ñëw. jouer série wala bok ñi ngi ci milieu bi déjà. c'est que dafa nekk ben milieu bi nga xamante ne buzz ku ko mënul té sincèrement parler bu si dugg quoi. Mhm. parce que il faut nga don Baay Faal il faut il faut nga wàcce sa bop il faut ngay fàttaliku démb. am na ñoo xamante aussi buzz bi des fois moy lolu quoi non Sénégal Sénégal Sénégal. soo ñàkkee jot de. fuy nga parce que mhm. écran dafa métti quoi tu vois donc yow lu lay baal man mun naa romb génn sama kër du ma nekk mhm. doomu aadama rek laa mhm. mun naa la romb du ma la xàmmee fekk sama bopp mu ngi feneen mais duñ ma ko baal c'est vrai merci beaucoup en tout cas pour l'instant rubrique mode et tendance. tout ce qui est mode fashion c'est parti vraiment ma amaat plaisir euh, de la de la lat, de la wax ne yaa ngi tangal y a quelque Khadija merci beaucoup c'est ah. sama frère man <laughs> a ah. <laughs> yaa suñu càmmeñ. ayca <laughs> donc vraiment Ndiaye ma amaat plaisir de mm-hmm. partager ak yow li nga xamante ni mooy plateau beeg mm-hmm. donc tey nag euh, seen rubrique mode et tendance euh, dama fi dalal benn Guinéenne bi nga xamante ni elle est basée en France. Mm-hmm. donc moi je ci turu Dalo Dalo Sakho donc dama koy bàyyi avant tout mu texte suñu de téléspectateurs yi elle est spécialiste elle est spécialiste en cheveux. Dalo la ci wàllum ci wàllum karaw. <laughs> Alors, bienvenue Dalo. Mm. Merci, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je vous mm. remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. Mm. Alors, je m'appelle Dalo euh, Saro, je suis spécialisée dans tout ce qui est traitement de cheveux capillaires, donc tous les problèmes, euh, mm-hmm. alopécie, euh, voilà, on traite tout ça. Ok, Dalo, comment, vous est venue l'idée de créer une marque de produits capillaires Alors, c'était il y a 8 ans. Euh, j'avais posté en fait une photo de mes cheveux euh, un avant-après que j'avais mis sur Facebook. Et euh, bah, c'est parti de là, j'ai eu beaucoup de demandes, quels sont les produits, qu'est-ce que je mets sur mes cheveux. Mhm. Donc de là en fait l'idée est partie de ça. Donc au début j'avais créé une crème capillaire pour tout ce qui est pour obtenir une pousse, améliorer la texture des cheveux. Mhm. Et à la suite de ça j'ai créé des gammes donc j'ai commencé d'abord par la gamme adulte, ensuite j'ai fait la gamme enfant, ah. la gamme bébé et ainsi de suite. Ah. Dalou, vous êtes spécialiste en cheveux. Comment mm. fait-on pour entretenir euh, la queue chevelure alors, pour entretenir les cheveux, mm. euh, surtout nous, les cheveux afro, ça demande beaucoup euh, d'efforts. Donc, il mm. faut vraiment être assidu. déjà, dans un premier temps, il faut avoir les bons produits. Euh, donc, non, euh, nous, on, préconise, euh, on conseille dans un premier temps d'avoir une lotion qui mhm. va permettre de bien hydrater les cheveux. Mhm. Ensuite, vous allez avoir une huile pour bien obtenir de la brillance. et ensuite, vous aurez une crème mhm. pour tout ce qui est pousse, volume, entretien pour améliorer aussi la texture des cheveux. quand mhm. xam nga nag au Sénégal souvent euh, parce que am na ku ma ko mhm. tout le temps dañuy jànkoonte li nga xamante ni moo di euh, leel. waaw madame, euh, cal cal calvitie. la calvitie mhm. voilà exactement qu'est-ce qui entraîne la calvitie. Alors, ce qui peut entraîner la calvitie, donc déjà, de nature, il y a des personnes qui, qui ont ça naturellement, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de calvitie. On a aussi, donc ça, ça, peut être aussi au niveau, au fur et à mesure de l'âge, que la calvitie peut, peut venir. Euh, on a aussi au niveau des tresses. Donc il y a des personnes qui, quand ils vont euh, par exemple dans un salon de coiffure, mhm. euh, quand les tresses sont très très très serrées, donc ça souvent. Oui, voilà les perruques. Donc souvent, quand on colle les perruques mhm. devant, donc c'est ce qu'on appelle les tempes dégarnies. Mhm. Donc au niveau de devant, les personnes peuvent être amenées à, avoir ce problème de perte de cheveux. Est-ce qu'il y a un moyen de faire le traitement pour que ça revienne, les cheveux Oui, ah oui? oui, on a les Mais moi, j'en ai ici au milieu de la tête, là. C'est possible, c'est possible de, retrouver mes cheveux, alors Oui, bien ah sûr, oui? oui, ah Après, ce sera, voilà, ce sera un traitement. Eva, bye bye, ça Non, tu coules bye. Mais, mais, est-ce que ça, <laughs> est-ce que ça, rose, mon amour Parce que mon sol... Casquette, la casquette, la casquette. Voilà, euh, Dalo, vous, en tant que spécialiste, euh, qu'est-ce que vous pensez de la teinture alors, la teinture, il faut mhm. savoir que c'est euh, quelque chose de très fort. Donc, c'est un produit euh, très, très fort. Donc, on peut se teindre les cheveux. Donc, on a la teinture, il y a deux formes de coloration. Donc, il y a la teinture permanente. Mhm. Euh, donc, ça, c'est si vous faites la couleur pour retrouver vos cheveux, la, couleur naturelle de vos cheveux, mhm. ça va prendre du temps. Donc, au fur et à mesure de la repousse des cheveux. Et euh, bah, du coup, ça va demander beaucoup plus d'entretien. Donc, on ne pourra pas utiliser euh, les shampoings. Euh, il faudra utiliser des shampoings spéciaux pour les cheveux colorés et pareil pour les masques aussi. Ce sont des produits très spécifiques. Voilà, d'ailleurs, on a envie que vous êtes en foulard. Mhm. Et d'habitude, les personnes qui vendent les produits capillaires, on a l'habitude de les voir. Elles montent souvent leurs cheveux. Comment vous faites pour vendre avec le foulard alors, du coup, c'est vrai qu'avant, je montrais mes cheveux. Mhm. Et là, ça fait euh, quelques années que maintenant, je, porte le foulard. Mhm. Euh, donc, les personnes qui me suivent sur euh, les réseaux sociaux, Instagram, mhm. Snapchat, voilà, de temps en temps, je montre mes cheveux quand j'ai fait mes soins. ou aussi, ce, qui nous permet, enfin, ce qui me permet aussi de, vendre mes produits et de faire la promotion, ce sont le retour de mes clientes. Donc, les photos avant, après. Vous n'avez pas de cobaye, par exemple De cobaye Une fille qui est présente tout le temps que tu utilises vos produits. ben, j'ai ma sœur qui fait beaucoup la publicité euh, de mes produits. C'est vrai que le temps a changé. Mhm. bon, il y a la chaleur, par exemple. Euh, exact. Et comment ça se passe avec les produits On dit souvent avec la chaleur, donc ça colle pas. que Alors, au niveau de la chaleur, donc mhm. nous, en fait, on conseille de faire des coiffures protectrices. c'est-à-dire en journée, on peut laisser ses cheveux à l'air et le soir, avant de se coucher, de voilà, de faire quelques nattes et d'attacher, de protéger ses cheveux, soit avec un foulard ou un satin ou un bonnet. ni mm-hmm. ok ñàkk mu nekk lu am solo comme ni koy faral di mm-hmm. waxee rek xam nga karaw dafa nekk loo xamante ni day dund comme nit mm-hmm. euh, comme euh, am na benn jour ñu talal fi benn spécialiste aussi mu ñuy wax ni karaw day feebar comme nit donc il faut nga koy entretenir di ko bàyyi xel parce que comme ni ma ko waxee rek njaak tout à l'heure moom euh, spécialiste la si waaye tamit xam naa tey dina xaw a doy ba ndax am na suñu ay téléspectateurs yi nga xamante ne dañoo bëgg di seetaan béeg leen mais duñu li nga xamante ni

Alors oui, euh, l'entretien des rasta des hmm. aussi, c'est pareil, ce sont des produits spécifiques. pour l'instant, nous, on travaille dessus, on n'a pas... Euh, D'accord. Est-ce que aussi les, produits de votre marque sont adaptés à tout type de cheveux chevelure Alors, spécialement pour les cheveux afro. Les hmm. cheveux afro, métissés, hmm. ondulés. Mais pas pour les cheveux, par exemple, européens, euh, pas pour l'instant. Mhm. le temps passe vite déjà donc en tout cas merci beaucoup pour les projet alors prochainement euh, du coup bah, en euh, là pour l'instant on commence à développer euh, nos produits à mhm. Dakar sur Dakar au Sénégal mhm. donc là actuellement je travaille avec une personne qui présente mes produits dans une boutique et prochainement, on espère, Inch'Allah, euh, l'ouverture euh, d'un salon euh, où on pourra présenter nos produits et faire des prestations Certainement, elle va travailler avec Madame Ba. Elle a un grand salon avec des cheveux partout, avec des partout. Hein. <laughs> Merci beaucoup, Eva. En tout cas, ça, a été un plaisir. Merci, merci Dalo. C'est Dalo Merci, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce plateau de Beklen. Mm-hmm. On vous souhaite une très bonne continuation à Dakar. Merci, c'est très gentil. Allez, merci Eva. merci remercier mon ci disponibilité am waaye tamit di remercier de passage Beydi mon frère donc vraiment moom aussi maa ngi koy def euh, coucou di remercier ñi nga xamante ñoo été ay téléspectateurs yi ñàkk di que jox rendez-vous rek prochainement Inshallah. allah ay ci solo merci également Khadija donc di la jaajëfal yow it amoon plaisir balaa ñu lay remercier dañuy jaajëfal sunu sunu invité bi donc Xos Toumani donc ñu voulons lay bëggee amoon plaisir de le dalal ci biir Ciné ci bon kontaan naa bu baax euh, émission bi neex na hmm. yéex xam nga euh, yéex naa si yéex naa si yéex naa si wër nga tale yëpp li mooy tale yaa HD HD

comme ni ko waa yéen état bi na dimbale cinéma bi. Ah. yéen est ce que yéen des fois. da ngeen wax bu ne yéen da nga naan état bi ñun RTS la mais yow soo nee yéen. état bi dafa nàkk. waaw mais état état bi teg na fi un milliard ci fonds d'appui. état la nekk nii de mais xool état bi teg na fi un eh, milliard. mais loolu njaag loolu beneen débat la. xam naa parce que dañu indi temps bi jeex na sax mais mais. waaw mais waaw mais maa ngi gërëm. mais xos avant nga gërëm état un milliard ci fonds d'appui waxal ci loolu. un milliard ah man gisuma ko de. lancer le ah, message dimbalé jeunes yi. Ah, ah. musique bi ah. rap bi mbalax bi cinéma bi. c'est le moment de lancer un message. waaw bon ñu may gëna a lancer message moy mm. que mm. sama sœur yu nekk Campenal. Mm-hmm. ok ok donc koor gi dañ fa demoon yóbbu way don sama mbokk acteur yi tout ça. Mm. mais nañu nañ leen dimbalé daal.

sénégalais xamnañ donc à travers la musique partout au Sénégal. Un plaisir donc d'être là koo xamante donc légende la ci wàllu hip hop Galsen génne woon na fi déjà déjà benn titre bu bu nice des fois beaucoup de déglu c'est un peu comique mais c'est c'est c'est tellement nice son yu def donc euh, di nga rétane di nga xapi di nga déglou également de la bonne musique donc muy Lam Toro Lam Toro nak euh, nek ndaanaan ci walu rap Galsen donc euh, nekk légende également un plaisir ak honneur ah di ko dalal tey ci bir beglen Lam Toro maa lay béggee de la kontaanee bu baax. waaw waaw waaw Ndiaye ngi lay siyaar bu wër baay. delloo siyaar. nak yitte yi. dégg gaa yi da ngay non bàyyi ah, ah, ah, damay laajte rek gars yi ñoo ko wax de. <laughs> non xam rek des nga xaw a. yaa ma gën a xam waaw saa nga gis loo xam ne da lay xaw a jaaxal. dëgg la la mu nekk sa xol doo ko mën a téye xam nga da ngay mhm. obligé extérioriser ko voilà waxtaan ak gars yi xam nga mhm, voilà mooy mhm, loolu c'est vrai que tey nag euh, bettu ñoog single bu bees boo xamante ne donc euh, mu ngi tudd Miss Baguette donc muy son bu nice. man sax bi nekk en salsa refrain bi envie de danser le salsa quoi mais mais malheureusement <laughs> afrobeat la. donc instant waaye nag euh, maa koy wax sànq ci introduction bi damay dalal également ben groupe mythique dañuy bañ loolu nag waaye man groupe mythique là leen di comme ni may woowee daara ji famille ah, donc euh, à l'époque plus France ak ñeneen c'est un groupe mythique ah. donc Chérifou ak Diop Subren c'est deux noms différents waaye c'est un groupe pour man parce que nak, euh, boobu tey ça fait des années ñu ngi bëggal Sénégalais yi à travers leurs albums à travers leurs singles à travers leurs tournées ak seen clips donc ak seen ay sons yi nga xamante ne macha allah dafay bercer Sénégalais yi donc muy love ak Yenen Thème. donc Chérifou ak Diop Subren donc première fois ma droite maa ngi lay déggee mon frère. maa lay fay frère. Mhm. di euh, nuyu grand lam Toro. Mhm. jandal grand la. waaw nanan la boo xam ne yàgg nañ ko suivre vraiment. ndeysaan ban son moo la ci marqué ci son am na son son. bu ñu marqué woon à l'époque xam na ko baal meew xaw ah. <laughs> mais son bu naay ah. bu naay ah. sax vidéo bi am humour am ay daaj. xam nga vraiment uh-huh. benn artiste bu kamal quoi ci li muy def. Uh-huh. Euh, vraiment. Mm-hmm. style bu particulier donc ñu ngi koy shout di ko nuyu bu baax baax baax. Mm-hmm. donc di nuyu Sénégal yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers émission bi ngay def nii. Mm-hmm. jàkk bala may nuyu euh, Job Sobraine mais gars yi nee nañ dañuy yóbbante quoi nee nañ ma naa laaj Chérifou

lan mooy secret bi rasta yi day gën di gudd quoi. <laughs> waaye kii ay <laughs> la. ah la. <laughs> ah ay kiraama la doy na waar de. parce que kenn du ko wax. et puis da nga ko takk nii ah mais dafa gën a gudd. waaw mi ngi ci suuf des fois dafay dox di ko gàddu nii. Oh. ànd ak moom di jàpp. doy na waar doy na waar en tout cas mu ngi noonu donc euh, Job sa brain également moom it naanaan la nekk également ci euh, groupe bi Chérifou ak Job sa brain da ngay bañ groupe. seen groupe bi dafa neex. waaw groupe la groupe bu la. ok ok Job Job ñu ngi lay. waaw mais ñu ngi siyaar suñu grand bi bokkal plateau ça fait plaisir. Mhm. di di siyaar képp ku ñuy seetaan. fii mhm. ak bitim réew. ok waaw bala may gëna sori may ñëwaat ci Lam Toro ngeen joggé ci festival bu mag bo xamante Côte d'Ivoire la won donc euh, il y a quelques mois déjà donc euh, ngeen mhm. def prestation représenté drapeau Sénégal. mu nekkoon lu nice mu ngeen ñëwaat ci tournée bobu non Côte d'Ivoire bi waaw tournée Côte d'Ivoire bi mm. comme ni nga ko waxee. une mm. représentation lañ doon def pour mm. Sénégal ñu jëloon ñu fekk ay artistes ça fait plaisir parce que. artistes yi bari le Sénégal. tout à fait représenté ko ñëw fii. peut-être représenté foofu noonu am doo gis ñëwaat Sénégal mooy comme chaque jour li lay wax rek pour xool nan la musique bi di génnee fii. parce que suñ xoolee Sénégal ñun ci routine bi rek. tout à fait clip dem télé <coughs> ñëwaat. lan bagage bi quoi mission le 26 euh, mars tout à fait c'est vrai guichet guichet plein la def. joué ko orchestre national. c'est vrai euh, orchestre national a état bi ko mm-hmm. pour

bon ah, ah, bon ba moo nekkoon suñu premier événement. surtout hein peut-être loolu moo taxoon moo taxoon ñu bëri doon douter que ni Sorano gars nañ ko feesal wala lii. Mhm. te projet bi sax direct grand théâtre la won ñun xam nañ lan lañ def Sénégal fi mhm. depuis 2017 le Chérif Diop sa Bryant commencé affiché wu mhm. booba léegi ay tube lañuy jox gaay yi mhm. te sénégalais vraiment ñu ñuy nangul lolu motax ñun duñu nalaw duñu xaar duñu def dara anytime cofeel bi ñuy jox da leen koy delloo à travers musique bi ñuy def donc biñu paré pour teg grand théâtre ci 2020 bi Covid bi ñeu depp ko Sorano bi yàlla dogal yaa wax sank Abidjan bi ñu démon Abidjan représente Sénégal àndoon ak état bi ay quelques kilifa donc ci le ci directeur Sorano bi bokol monsieur Koundoul ñu ngi koy nuyu au mm, passage mm. donc bi ñu demee prestation yu rafet yu ñu def mu mm. kontaan mun nañu ah vraiment day bëgg naa man ci seen carrière ngeen ñëw Sorano période ma fay nekk ma xam ne Chérif Diop sa brand man maa leen jox salle bi ñu ñëw def seen prestation donc bi ñuy waxtaan ak staff Rock Team bi yëpp ñu ne avant grand théâtre bi kon nañu def Sorano puisque mhm. tamit salle la boo xam ne symbole ci musique sénégalaise bi mhm. suñu kilifa yu bari fa daan jaar baax na ci suñu parcours mhm. surtout orchestre bi orchestre national lañ am ci Chérif ak Diop sa xam nga commencé ko ci directeur bi vraiment. Euh, donc voilà. même directeur RTS ah. Hein, DG Racine Talla mu aussi jàppale ci événement bi recevoir nañu ci bureau am Géejawaay. donc japp ci financièrement. Mm. Mm. xam nga jàpp ci com bi aussi. donc mu xamal nañu kooku la ñuy le prince des actions sociales. voilà mi ngi noonu xamal nañu RTS sen kër la jox mm. len ma pub bi dama koy dawal. def na def na lu bari ci événement bi. voilà donc mu nekkoon événement bo xamna sénégalais ñoo ñu wuy ci donc di ci profité nuyu waa ñag sama dëkk. gis nañ kaar yi fa jógee. waa kaam mm. waa Guédiawaye waa Thiès Sénégal yëpp fu nekk ni jóge na fa ñëw wuy si Chérif ak Diop Sobraine mm. donc je pense que ni liggéey bi ñu leen wan moom lan ñëw firndeelal bés boobu mm-hmm. que ne li ngeen ñuy jox ñun neex nañu quoi tout à fait Aïcha dinañ ñëwaat dans un instant ci single bi waaye nag Lam Toro da moom it euh, mënuma la ñàkk laaj euh, lan moo waral stand by bi boobu léegi aussi parce que da nga marqué woon Sénégalais yi à travers c'était fameux single xaw ma sa album ça à l'époque donc mu nekkoon Chérif euh, mu ngi koy wax sànq meew ak yeneen donc donc donc clip bu bi nee na xale bi naa ko may cere eh, eh, eh. ah kon non ñëwal ñëwal ah, ah, ah. su ma ko may cere dinaa ko zere kalonte neex na lool te deret kalonte neex na lool te deret kalonte neex na lool te deret kalonte neex na lool you know moment yu neex yooyu époque yu neex yooyu nga teewoon musique bi yow tamit moment boobu vraiment gars yi doon la béggee et tout nga jëkk-jëkk def benn rupture waaw xam nga. Mhm. Euh, dafa mu la reculer pour mieux sauter quoi. Mhm. c'est bon am na benn instant génne na affaire bi mu def tabac xam nga. Mhm, et j'y allais avec mes propres moyens. c'est à dire euh, ñun problème bu ñu am mooy que ni on n'a pas on n'a pas eu la chance de voir des producteurs yoo xam ne ñoom ñoo ñëw def financement bi. def production bi studio bi def production vidéo et tout yaa ngi comprendre. man je travaille je suis artiste en même temps boulanger. Je suis ci boulangerie hein, comprendre. Mm-hmm. donc avec les maigres moyens que j'ai mm-hmm. bon studio mes vidéo mm-hmm. donc du coup à moment a da difficile quoi donc es obligé de reculer pour mieux sauter. comprendre bon instant bini là temps toogaat defaat benen affaire bu nice xam mu tudd Miss Baguette mom la ñëw pour présenter ko Sénégalais yi mu nekk combat bo xamné xam nga peut être bo tegee vidéo bi gars yi dañ comprendre lan la ci bëgg wax mais après ma sok leen expliquer ñom lan lay wax ci clip bi parce que ay métaphore la man je joins l'utile à l'agréable mm-hmm. Mm-hmm. souvent dañ may né gayan bi il fait de la comédie musicale c'est vrai mm-hmm. mais dama joindre l'utile à l'agréable voilà dama rétan lo nit ni en même temps ci bir reetaan yooyu noonu da ngay xol ci suuf dafa benn message positif bo xam

Mashallah. game lol ah ah. génération day am lu muy label Rock Music. Mm. autoproduction def mm. vidéo clip. def chansons. di di produire artistes. Mm. peut-être yàlla beaucoup, ko ñëpp. ok mais ñoo te ku vraiment fa nga bokk la fa nek yéen ko bokk. ok grand bi welcome. ok yëm nga Tudor Rock Team Music. yaay ci biir. kon jeex na heure filé ñoo ñu def lu ñu ne. kon amna ndam jeex amna ndam begg len amna ndam. <laughs> ay ci amna ndam begg len amna ndam donc euh, légui nak euh, jeex yaangi ci label bi inshallah rabbi way nak euh, yeen ay référence ngeen yeen cherifou Diop su beneen parce nak vous me rappelez ay ay dañu nek ay mm-hmm. artiste star planétaire am label. Mm-hmm. ay Kanye West. Mm-hmm. ay icon national suñu icon kon kon Music. yoy c'est très important aussi hein donc business la et puis industrie là c'est important ay ca bëgg leen nag xam ngeen nu muy demee la prestation playback la na ah, ngay rejoindre scène bi donc Lam toro may gars Miss Baguette ñu fecc ko daal di ñëwaat c'est parti Miss Baguette su la gissé manam somi yima sama col bi dafay frigidaire su la gisul damay toog di misière barke yu mam baabam on ñii de xappees su ma la gisee sama xol mi dafay sa cuuraay sa xet bi ma xel mi tukki ne mees tàng doore xoyom xoyomi sama furu fara bi la am envie 32 daa bëgg la wonderful son bu nice donc kooku mooy euh, Lam Toro ci mburu xam nga ah, ah. <laughs> Euh, xam nga mais son bu nice ah mais quand même euh, gars yi dañu réclamé son bi salsa parce que dégg naa euro salsa quoi surtout refrain bi. boo man keroog da nga hmm? nga ko def salsa wala mbalax yi tout xam nga. tendance bi. Hmm. Hmm. cest dafa muy toll tendance la. dem luy xew luy xew il faut que waa nga ñëw wane foofu sa empreinte enceinte wala ñu foofu mëne nga fa bien vrai que ni ñun ci rap lañ commencé mm. rap hardcore defo nañ fi ben clip bu tudd Kenzen essayant de comprendre demoon ay yoomal xiyaam ñëwaat et tout xam nga hardcore xam nga mais instant bu ñu demee ba falsifié ni mm. c'est ce qui c'est ce qui te montre que amna lo xam du bari maîtriser nañ ko mm. te musique science la manam tendance bu xew rek war nga ci mëna a euh, def ben sa ben empreinte quoi motax ma défé ko ni mais son bi dama bëgg bon ma expliquer ben affaire c'est-à-dire son bi bo xolé mburu lay woy ba pare métaphoriser ko mu mel ne jigéen laay woy Miss Baguette Miss Baguette mm-hmm. pour wax waa Sénégal ne mburu cest à aliment mun nañ ne aliment de base Sénégal la soo demee ci géto bi par exemple am na kër yoo xam ne tey jii mm-hmm. heure bi nii du ñu am par exemple lu ñu toggee reer mm-hmm. dañuy obligé dem dañuy dem fële boulangerie. imagine toi nga am sa mm. nga yor sa njaboot yor sa mm. ñetti doom par exemple. Mm. amoo loo kiiwee tu es obligé nga jënd sa kilo mburu dagu ko en trois parties. nga jox ko say dom ñu lek ko nan dox après teddi nelaw. c'est vrai hein donc euh, combat bi moy que ni. mii su baguette bi. que ñu dimbalé ñu ñu xol naka lañ koy wañé suñ koy wañé cest dire du mise bi rek ngay wàññi mais na am ci kaw. la nga xam mom moy mooy defar mburu mi ci jëmmi bopum mom ci jëmmi bopum dañ ko wara wañi nga xam lepp chaîne lay doon. bu lepp wañé ko mu euh, yomb ci boulanger bi mm. ñun dañu mëna wañi bagage pour population mu am accès ci lool parce que ñun ñi si liggéey mm. ñun xam nañu li ci né li nga wax ni buñ ko deful dañ lañ ag kilo 500 de baguette bi 500 voilà en même temps tamit sama mbokk sereer yi xam nañ ndaysan fa nga dag yeb ñom ñokoy boju tay ji xam fa nga dag yeb ci waaw ñom mari caméra wu mel bi mari en face waaw waxal de sereer yi xam jaamu tukuleer yi xam ñom ñokoy encaisser xam nga ma leen ci toñale parce que sénégal benn bop la ken mënu ko xar ñaar ya comprendre et puis fu mu ne ni jamono ji ñun tollu ni c'est à dire on se voile pas la face on sache que ni

ay recherche la yoo xam ne sunuy maam yi fii lañ ko bàyyi woon mm. mu doon lo xamné instant ça ça a tendance à disparaître mm. et ñun sunu genre dañ nekk ñoo xam dañoo bëgg bëgguñu lolu di fi joggé parce que lolu moy pilier de la paix lolu mo té Sénégal essayer comprendre donc nañuy nañuy nañu na nañ nañu indi nañu indi jàmm quoi amna solo jàmm ci la lépp xaj ñun jàmm lañu woté donc euh, amna solo message bi guddul mais amna solo trop c'est très important mais ñu ngi lay jow sank mak euh, cherifou muy naan vraiment bi ngay presté muy naan artiste plein là c'est un artiste plein mais bëggatu ñu rupture hein, franchement parce que de plein plaindre, da beaucoup sur la scène dañu la sa présence sur la scène musicale sénégalaise c'est très important aussi ah hein. ay ca maa que koy wax donc euh, Dosé génn single bu non ba single c'est un album de la bokk ah su ma su ci album bi parce que bu ngeen lancé album déjà a le deuxième album bi Le hein. deuxième album bi ñu le euh, 27 décembre passé mhm. mon album novelli mhm. donc vous devez regrouper onze titres

Kenzel gis nga duma gaay dal yi ñu man tayo moko ko toq doojane ci man sëë sëë tëtë sëë bakku maage ragaluma li ma sànni ci kaw gi duma Charlie Charlie munuma saal ñaaw sañsee dama ko duma maye damay jaay c'est que le gué on est chitamé Di doze, di zonze Boy doze nan ko te chitabile Du mun moye damay jaay dra Sen c'est que le gué on est chitamé Di doze, di zonze Boy doze nan ko te chitabile Nangul ma solo, sol bi moo ma solo Man la ñuy xaar ni weddi xol fi temps bi toll maa leen doy ci sañ se man la gën fi wóolu maa fi nay coow bari na ñii di sàppe man la imagine Jab di bonte koñ bi rëb def ling sooy tëb ay booy mool xaar ma rom ñu teg ma seen si napp tey dina boy ku jum ba xef doo gis li romb yëpp tey dina sooy xale bi dee fatin na mëninam yee njaabu bandi bee feeñal na qualité def bu sew bi cokki cokki ba fa coow li sëy amagum kooba du kooba wàcce na ko ba zéro ah. un damay jaay daal niseka wagire unechitape idoze izonze mbo idoze nankotechitape duma mweyeta mwenjaita siniseka wagire unechitape idoze izonze mbo idoze nankotechitape tempo tem que dar. ayca ayca mu ngi noonu donc doser ah doser hein, doser man su ma neexee dosé parce que Waalo Couture moo fi jaar ah. yéen su la neexee ngeen dosé parce que yéen a ngi seetaan bég leen émission bu neex bi ah dosé ah dafa xew donc euh, mm. yàqul dara la mm. modestie c'est pas c'est est pour euh, la modestie c'est est pour les faibles. damay tooñ rek aussi laay tooñ xam des fois mu modestie zéro. mu ne la modestie c'est pour les faibles. en tout cas son bi nice donc doser bokk ci album bou euh, Chérifou ak Job Brain donc déjà na gars yi xool clip bi ah mu YouTube déjà. muy son bu nice nice nice nice mais à chaque fois maa ngi faral di wax keroog sax ma ngi leen ma ngi leen koy wax quoi des fois sa album bi mu am benn titre bu xaw a naqari sax <laughs> gars yi ne noonu bii moom gars yi nelaw nañu fii mais bii nice bii nelaw nañu mais mais yëpp a neex quoi franchement togg bu yàgg la wala togg bi ah, noël la tudd <laughs> nag ah? noël mooy neex na dafa mel ne woy woy daneen yomba quoi yéen yéen ah, dégg naa da ngeen di nelaw di woy <laughs> di woy di naan cayn di woy xam nga quoi parfois doo ko tey hmm. comme li grand bi di wax xam nga mbootu it da nga koy kepp mbootu it it mbootu la quoi da ngay dem ba da nga ciy toog

dose bi mom moy 3 troisième vidéo mm. ci album bi mm-hmm. def nañ naweli bi def ak Wally Seck mm-hmm. def nañ bokkuloog ñom mm-hmm. dose bi ñëw na récemment ni incha allah ngi préparé ben benen vidéo ci clip bi dagul aussi dagul aussi ah, euh, dagul dagul bokk ci album bi single single à part la quoi voilà nous euh, ngi waajal beneen morceau bu war génn mhm. avant juillet bi. parce que dañu avons a def international benn tournée bu ndaw. justement Il bëggoon ñëw ak parce que nous bi déjà mi ngi dem déjà. justement mhm. da ngeen euh, bloqué woon seen date yu bari à cause de la Covid. Hein. Covid bi affaire bi décanté woon situation bi mu ngi mhm, ubbeeku gars yi ngeen ñu ngi tukki dèjà. gis naa seen ay affiches euh, ngeen di préparé international ah. Espagne Paris Italie Nous hein. mën ngeen ñëwaat ci tournée voilà non le demee. donc le 16 bi 16 juillet Inshallah, nous ngi Italie. Milan avec avec Lairose mon suis mon promoteur mon mhm. suis mon mooy euh, teg tournée commencer en Italie mhm. donc euh, Inch'Allah, mhm. le 16 bi il yi ñuy fa euh, aussi war nañ France war nañ def Nantes avec Paris comme Nantes bi dina le 22 juillet vendredi là-dedans, inshallah. 22 juillet On a un festival aussi bu def à partir de 21 le 24 aussi Paris là, inshallah. donc actuellement la affaire bi chargé na ñu ngi koy mais dina am benn wala ñaari vidéo bu accompagné wax leen wax leen ko fii ça fait l'occasion da ngeen bëggoon bëgg leen accompagner leen waaw non bëgg bëgg leen comme ça comme ça comme ça ah. le directeur moom da koy yegee fii ah, bëgg leen ci ànd ak leen ci tournée européenne ay ay loolu dina neex ay ay colis yu doy waar lay doon incha allah en tout cas merci beaucoup tournée bi yàlla na ci yàlla def donc waa Europe ñu ngi leen di xaar waa diaspora diaspora ñu ngi leen di xaar également donc euh, mu ngi noonu ñamoon di leen dalal donc émission bii di bëgg leen donc euh, Chérifou waaw mais ñi ngi béggee ah suñu mm-hmm. benn grand. Ah, mm-hmm. Assane Diarra. Assane waaw Chap Chap. Mm-hmm. Assane Diarra Chap Chap moom dafa. Assane def carrière Chérif Diop Soubrand. ok ok lu rëy loo xam ne foog ñu koy béggee. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñu koy béggee bu baax rob Chap Chap. big up Chap Chap di ko shout out Music yi aussi gars yi xam nga nante bi.

Aïe, je donc se poursuit tranquillement donc à chaque fois donc euh, xam bu fin émission bi dañ koy je ay ci rebatas nag dama ci ànd ak euh, cukku le phénomène ñu dénk lépp lu war jëm ci wàllu reetaan fii ci kër gi ah lépp lu jëm ci wàllu reetaan rek mhm. ah dañ ko dénk cukku le phénomène cukku le limitateur maa ngi lay bëggee di la kontaane bu eh, baax njaag maa ngi lay et puis temps yi da nga bari xaalis ay garab mbubu yoo rafet ngay sol ay euh, lii ah, ah, lii ah, ñaa la rek mbay ñaa la rek ñaa maa euh, njaag maa ngi lay nuyu mhm. li nga sol rafet na. merci beaucoup waalo waalo Couture waalo Couture. waalo Couture jaar fi. Mhm. mais macha allah. naa leen boole naa leen boole. boole ñu ah mhm. Ndiaye maa lay nuyu. Mhm. vraiment di am mbégte ak kontaan te ci soppe xarit yi am di jàmm yi. di nuyu le grand caméraman Ndiaga ma ngay caméra di nuyu Marie. Ah, ah. di nuyu waa Rési Awasi la fa nekk. Fàtte nga en face euh, kan mu nekk en ku nekk en ah? jibi maa ngi koy nuyu <laughs> jibi yow xam nga ñu nekk en rek. ah euh, ku nekk Rési Awasil ak kan la ak kan euh, ñoom ñoom ñoom Nicole ñu fekkee mu ngi fa maa ngi koy nuyu abu abu abu waaw maa ngi koy euh, nuyu baax ñoom Francis gaa yëpp ci ñoom soppe yi Badiane am di jàmm ñoom Badiane ñëpp maa ngi nuyu <laughs> di nuyu ñoom ñëpp ah, ah di nuyu ki nga xamante ni bii mooy euh, Tafa Tafa nekk mhm. le grand cordonnier nekk fii ci Médina rue 22 angle cor euh, angle 27 angle cordonnier euh, <laughs> cukk moo ñuy defar ba tas donc eh, xam ngeen information majeure bi nekk ci réseau yi moom mooy affaire Idrissa Gana Gueye bi donc moom moo war tour yi réseau yi yëpp bala ñu ñëw ci suñu invité yi donc dañuy daal di recevoir Taïb Socé donc ak Maître El Hadj Diouf dañu am message message bu ñuy jàllale ci wàllu jëmale ko ci Idrissa Gana donc dañuy njëkkee euh, oustaz Taïb Socé donc dalal ko ci biir euh, Begleen Taïb ñu ngi lay nuyu oustaz. Eh, maa ngi lay nuyu. Ah, eh. di la gërëm encore une fois. di la fay ah, ah, di la wax rabbi sarax li sadri. Mm-hmm. ويسري امري وخلو الاقدت من لساني يسو خولي غناو بنو سانت يالا مي ادمي تايب امغا تالا نك لوتا غنيو بوفي بوغ واخا مي بوغلو طيب، آه، لير بوغلو لير بوغا واخا اسكن وي كون بوغ تاي بوغلو لندم ناي لير ساي ناي لير ساي ساي غي اجي تفي تفي داي لير آه، تفي داي لير وخدك يالا او ديفينيسيون بي لا ا دافا ام بن خالي بن نداو بن نداو بي ديف تاغات يرام تاغات يرام وخدك يالا ها موي كاي واخ ادريس تورم بي نيك تور يوننت ادريس والله ا آه، ماي واخ اكي بوب موي فوتبول كوم باغنا موي بي نكو ديفال سيلنما dégg <laughs> nga <laughs> ah, demal nga ne comme. mais man ni comme bañ na li nga xam ni mooy. Eh, hmm? mayo bi mais nañ ko defal sële maam wax dëgg yàlla ah, wax dëgg yàlla <laughs> waaw. beneen équipe bi xam ni kii jullit la dañ koo bañal lii moo tax mu sol seulement bi. Hmm, mais boobaa du sa colpa. mais ça colle sol maillot nga sol sous-vêtement mais parce que li euh, euh, l'islam euh, mayu ko pour mu sol hmm. ah, loolu. mais mais nangu ko sax. ah benn nangu ko ah, mais loolu Idrissa ko ciy félicité. Hmm. di ko ci encouragé encore une fois. Hmm. bañal ba daanu ca lankal. nga daan ca kër ga waxtu ah, nangu loolu loolu mooy message bi ah loolu mooy message bi vraiment natol siletement gars yi ay mu fubal tey tey mi ngi lay jaajëfal message bi am na solo waaye tamit maître El Hadj moom it euh, dikk na dafa message moom it euh, maître ñu ngi lay ñaan nag amul xulo temporiser rek nank rek message bi jàll ñëpp dëgg li ngay wax maître ñu ngi lay nuyu di la kontaane bu baax ah, man jour laa woon ah boy ah nekkoon naa capitaine euh, kii nu mu tudd douane douane mm. dem jaraaf toj ko mm-hmm. jóge jaraaf <laughs> dem jara dem non boy lotis dem ñaar tawé dem ñaar tawé toj ko dem eh, as begin as begin toj ko man bo bo gan yalla ko yalla yere bo gan ngeen may laaj hmm ay ma wurtu ni nan bu wolan lol pourtant tay dañ koy def ben hommage bu eh, eh, inshallah rabbi xam nga ko coincidence mo ben documentaire rts mako def lol lol xam yego won xam yango hmm. wax yego won lol coincidence pour wax la man fu wol sama man fu wol hmm. bo gan yalla ko yalla yeram di wax dal hmm. gan limu def ah, ñu ko ci féliciter Ah, en tout cas dugguma la démb defal nañu ko benn hommage bu bu bu doy waar donc euh, RTS defal ko benn documentaire. rendre hommage non di ko di ko di rendre hommage également vraiment ñu initié documentaire boobu yëpp en commençant par le DG ñoom Pape Madi toute l' équipe desk sport bi yëpp ah. vraiment di leen euh, Azara. Ah, hmm. yéen du ngeen ay nit. yéen da hmm. ngeen di teg affaire ci yoon. idée Pape Madi la ah. idée Pape Madi la. Hmm. Pape Madi maa ngi koy nuyu di ko gërëm. vraiment di wax boogaan yàlla ko yàlla yërëm. ndeysaan ah, di wax man jour laa woon li booy bi def. man yaa ni moo def jaraaf. xam nga ki Pape Madi. xabaar yi mooy directeur RTS 2. ñu on a cinq télé. Fane ba ba Fane loolu. waa ñëwal waa ñëwal maître ñëwal. nga bëgg. Pape Mané mooy directeur RTS 2 3 4 am ngeen cinq télé. mais macha allah RTS. waaw cinq télé nga région ñi am benn dara fat nit ñi. gërëm <laughs> cinq. da <laughs> waxuñu. doo leen. boo paree match FIFA ñoo koy filmé. waaw booy dama laal loolu. Sénégal buy recevoir. am bu match FIFA la. mais loolu. ci xam yokkale ci benn affaire. Ah. Euh, Gambie buy recevoir. RTS mooy dem filmé CAF. maa ngi leen buy recevoir Sierra Leone buy recevoir. mais da ngeen tere. équipe nationale a dëkk. RTS mooy dem filmé. mi ngi am cinq télé. pare gu ma Libéria. Sambalak booy cinq télé ngeen am. cinq. ñi am benn fat nit

ak comédien ak ki nga xam ne mooy patin mhm. yéen ñaar kan laa ci war a njëkk nuyu ku ci nuyu baax na mhm. Mhm. Seck maa ngi lay nuyu di la nuyu vraiment di la bàyyi nga nuyoog euh, téléspectateur RTS yi di am mbégte ci yow ak kontante boo xam ne bu yaatu la di la wax Sénégal a ngi lay siraan àdduna a ngi lay siraan looy wax jërëjëf Mbaye cuq mi cuq ñëpp tey cuq affaire yi fa mu cuqi ko ne ko teg ko ci cuqukaay bi ñëpp daal ciy cuq bu tëbee nag ku ne cuqut cuquti <laughs> maa ngi lay siyaar njaak ku ji njaak yaay njaak wallaay jantal booy doomu réew ci yow laa xamee ni tey ngeen bàkk njaak ci yow rek laa xamee ni dama la xool rek mm-hmm. gis fi ñu gerte kemb mm-hmm. sa que bi tin wu gerte kemb la saxar eh, bi lim saxar bi ngay andal ya. non non ko pour ya. moussa yo ya ya ngi tax awosel dina wax non pourtant wax nga deug pourtant wax nga deug dama ne la jak pourtant deug nga wax deug non xol ak yow eh eh xol ak gerte kemb xol ki xol xol ma waral ma waral ma nga yo ya jantal boy do mu rew mi kon jank jek jek jek njaga mardi xolal li am nga li n'importe qui diko am ma ni ziar jank jek jek ah, ah, ah, di bako wax madam dina merde ak njaga mardi eh voici mamé ela 5 4 doigts mais sa banque la benn bii war coko xam na li may wax maa ngi koy ziar ah, man de booba tey maa ngi négocier ñaar sama xarit fu mu ne nii damaa sant yàlla ki njëkk a wax ci dëgg lu dul ah, ci àdduna lu dul dëgg laa toogal euh, patin nuyul ak waa Sénégal waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna wërgal këpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa RTS mm. li nga xamante ne wax dëgg yàlla mooy suñu télé mm. nationale mm. mooy télé bi nga xamante ne xam nga man ma wax ci mbooloo tàmm ma ci mbooloo waaw xam nga tàmm ci mbooloo ah, oh. <laughs> yàlla kontaan naa trop di nuyu sama waa koñ mm-hmm. waa Grand yëpp maa leen di nuyu xam nga di nuyu àdduna wërgal képp mm-hmm. di nuyu képp kuy bëggee patin maa lay nuyu di nuyu sama magu bopp sama grand bopp muy Pape Cissé ndeysaan ayca maa ngi nuyu àdduna yëpp am na solo bu demee ba toll fii nag ci biir émission bég leen rebata surtout amul ñëpp damay bàyyi gars yi doxal waaw léegi patin mm. yow ban histoire nga ñu mën nettali mm. loo xam ni loo fekk la wala loo dund la mm. loo xam ne réalité lay nekk dëgg dëggantaan ah? mm-hmm. waaw wax dëgg histoire boo xamante ne dama koy nettali loo xam ne dëgg la te li may wax yaakaar naa ne rus naa toog fii nag ay nit di ma seetaan may wax lu dul dëgg. surtout ay kilifa waaw surtout ay kilifa waaw bu mag bi sax. Ah, doxewuñ noonu sax. waaw doxewuñ noonu nga moo tax def lu baax dafa am solo. te y' a pas de sous waaw xam nga. Hmm. benn la rek man fu ma jàngee la ku jàngee John Kennedy. kii bi la neex ngay laajte du la waaw léegi. damay dem màggal Touba wax dëgg yàlla ba may dem ba Touba mu ñëw ba Bargny. Hmm. gis euh, ñeenti camion nag camion nag yi pan ci yoon bi fekk maa ngi yore benn vélo mais gars yi pan nañ fa vingt quatre heures. samay nagu maam la de. gars yi pan nañ fa. Hmm. vingt quatre heures ñu dem nag yàlla dimbali ma xam nga man daal maa jékki-jékki rek ndekete man ni may pédale velo bi teg naa benn camion bi tànk ba Touba loolu. bokk na ci loo xamante ne wax dëgg yàlla marqué na ma. ndeysaan <laughs> déggal lii. <laughs> oui ma. nii nii nii mënuma rey <laughs> mais li mu wax lu mën a nekk la pour la. dafa dafa dafa yemee. non déedéet kilifa la du taxaw wax li nga xamante ni mooy dëgg. Ah. yow nga ni amoo reetaan te yow yaa ni ay kilifa ko seetaan. ñaar c'est deux femmes. deux am naa ñaari jabar. dëggantaan. am di sérieux am naa ñaari jabar. xam nga sam benn jabar bi wax dëgg yàlla. raqu Van Daam la mooy Marie Daam. Marie Daam waaw. <laughs> xam nga tamit nag. cuq mi jëndi woon guro xam nga sama beneen jabar ji. dëgg naa ñaar bi euh, guro daa mañ ko ñu ñu jënd petit cola. waaw non non ñaari jabar non ñaari jabar laa. Ah? ñaari jabar laa. Ah, waaw wax dëgg yàlla maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu Marie Daam. Hmm. xam nga waaw di nuyu. Nakamura moom wax dëgg yàlla coréen la quoi ba sama tournée Corée bi lañ xamante mm-hmm. ma takk ko xam du ma takk jabaru sénégalais. Mm-hmm. xam loolu moo tax xëy na <laughs> xëy na sixième femme quoi parce que sama xel bee ngi. ni ñu nuyoo ci coréen noo koy ko njëkkee gis noo ko nuyoo. ba mu ko njëkkee loolu moo loolu quoi. <laughs> ay ci ñëwal <laughs> dajji leen ñu reba tas la. amul ngeen Ibaru bi day arbitré match ci de di arbitré match gaayen dernière minute benn waaye dóor bal bi ci poto bi réel mu tiire bi ñu ne ko foo ko teg mu ne yéene la yàlla di <laughs> loolu leer na. parce que yéene woon na dugal waaw yéene dugal innamaa a'maalu binniyaat dëgg la. Ah. mais xam nga fan laa ba nga indi ma fa ah? hmm. euh, kii bi euh, raquin bi raquin bi nga rey woon ak euh, kii nu mu tudd. non loolu loolu bëggatuma ci wax parce que wax dëgg yàlla loolu am na ñoo xam ne gëmu. mosul rey raquin bi ñëw ci rek bay. non non daa am ñoo xam ne gëmu. yëgu ma xam nga hmm. dafa am benn raquin boo xam ne dafa nekkoon ngor. Hmm. raquin bi مقول لكن أي خلة لكن بلكن ترى بال 200 خلة ما لكن بجاي دفن الجنة بول راي كومونيو كراي خامو من لما دف أرماسيا ولا مير تلا ما جاي وولو كومونيو <laughs> أرماسيا ولا مير وين أمنا آه دقيلة لولو أمنا تلا ما جاي وولو كومونيو رايل لكن بيت نك كومونيو Gidgeju kor rakem bintin rakem bintila nuru tura sana sana dinda mer profunder. Kena ag rakem bintin katirer bela mukorai. Berno. Kamu rakem bintin khati nama. su ma la woonoon fii requin bi moom a xool. wan nga ma ko gis naa nga ko. si laa yu ma ko yuuxoo ñu sànni ma kir naa ma jëm ko ko mu de hmm? non yow yow yow. yow loolu dafa loolu loolu ah? loolu histoire la. fii. wax dëgg yàlla loolu loolu la. dëgg dëgg ay man man daal bëgguma nga. dëgg la xanaa xam ne moytul ma waaw. moytul ma kuy sàccee wokaam baaxut. Mhm. kër yi dañoo nduro wokaam. bu fa dugg di sàcc mhm. sàcc bi dafa dugg sàcc génn war na koñ bi deux ans te moom mbedd mi mu taxaw rek la ne mhm. gars yi kenn daa xew ko fi ñu toog lañ toog dafa ci rek <laughs> ci seen temps <laughs> xam nga day rek <laughs> am xam nga temps yële paase bu mu ñëw géwal bi sàcc bi dafa dugg kër géwal yi di sàcc géwal yi jàpp ko na ko ñun ku ñu xam-xam ne du ñu dóor ñun ñun du ñu door du ñu saaga ñun ay géwal lañ géwél yi dañoo jàpp sàcc bi teg ko ci digg ëtt bi trois jour mu koy fecc ca gun gun cacararak gun gun ca gun gun ca gun gun re sàcc bi fecc na lool deux semaines ndekete sàcc bi dee na bu yàgg bu ñuy robi ji sàcc bi si biir kees bi ñu ko dugal cacararak gun gun cacararak gun gun ca gun gun ca gun gun re regi moo ko rey sàcc bi regi moo ko rey sàcc bi moo jékki-jékki affaire yi soo ko mu génnee loxo bi gin gi caa gin gi cëgin <laughs> lo eh. nga ne nga ne sàcc bi. moo génnee loxo parce que dañ ko ni woon doo daaneel. waaw. loolu lañ ko wax doo daaneel. <laughs> gis nga xale yi deux mille yi quoi franchement. surtout xale yi deux mille yi ku leen moytuwul. Ah, ah. ay foofu foofu la ñu daanale ah <laughs> xale yi deux mille yi waaw nga ne. xam nga lu may rey. Hmm? léegi mais xale yi deux mille yi bu fekkee moom la moom la gars yi di takk suñu tataay ñu leen di takk. suñu ménopause ñëw na de. ah yaa ngi koy tooñ de. non lu leer de ménopause am na ñooy tooñ de. yaa ngi ah, abusé non non abusé moom barki ah. démb damaa jàdd. Ah. fekk lu neex. femme bi xale yi 2000 yi. Mm-hmm. mais cuq ne ne gaañ bi da nga may takk parce que ñoom ñaar ñu gaañ bi nag yorut. mais jabar ji jàmbaar la. Mm. mooy femme yooy nga xamante ni dañoo doon ay jàmbaar. mu mm. a sonn ci seen i borom kër di def lépp. mais nag sadik ci biir. mais sadik ci biir ndax nag moo naata xam la ca dégg ba mu muy nux ba baan ba eh ku gis nen ne na ngi eh mbay dara mu soom xale bi def ay critère am ne ko danga may may nangam ak sangam nang xelam ne yar ci ooru jabar ji jabar ji day yëg dafa am sensation tëdd dañoo am doomu trois mois moom tëdd na nelaw gi profondeur na booy bi jug na bañ nampal ko tëddaa dafa jug cinq minutes mu ne day sàcc jabar ji <laughs> mais daal laal ori rek jabar ji kuur ko mu tëddaat nekk kanam gi toll na ni buntu RTS. Hmm? mu yeewu jabar ji naan ko yow yow ni jaay dégg nga ma démb maag sàcc bi. mu ne ko dégg naa leen moo tax damaa ree ba sama kanam gi néew yi. <laughs> Ah. te kuur gi la ko yéen mais nee na ree ba kanam gi loolu daf may fàttali juste ñu tàggatoo moom daf may fàttali euh, benn paa bu bëgg takk ñaareel mais dafa ragal jabar ji. Mhm. tellement ragal jabar ji mosuma gis ku ragalee jabaram noonu ah. mais mu dem nag takk ñaareel xamu nu mu koy waxee jabar ji annonce bee doy waar. annonce bi nu mu ko war a waxee jabar ji. Mhm. rek mu ñëw mais ci jëkkër gi. ne ko koko jabar ji ne waaw mu ne ko chéri paa yi ko ñu ñoo soof mu ne ko lu xew mu la ñu def di maye rek sama mbokk pël di dima maye rek di maye ba mayaa la ma jabar <laughs> annoncé na ko ayca <laughs> gars yi xam naa fi nañu jaar tàggatoo donc jox leen dig daje donc incha allah donc euh, samedi prochain ci beneen numéro bég leen euh, Patin merci beaucoup am nañ plaisir de dalal waaw merci kontaan naa ci yéen wax dëgg mm-hmm. yàlla di la nuyu parce que yow maa yow ñu ngi mujjee gisante Nouadhibou waaw waaw non non Paris non Nouadhibou Nouadhibou Nouadhibou lañ gisante ah, ah. <laughs> waaw selfie bi moo noonu Nouadhibou la foofu gaar xam nga ah yow ah, yow nan ngay nekke nekkee Mauritanien di bañ sa dëkk. nit du bañ dëkkam yow. loolu baaxul. <laughs> waaw Nouadhibou la ñu. seen xatta waaw fa lañ mujjee wax dëgg yàlla. <laughs> ñu waxtaan lu yàgg. wax dëgg yàlla nga may ma njoor ndi sax yaa ma ko joxoon. si si waaw loolu am na maa ngi je xel bi amoon dem di nuyu ñëpp. di sant cukku. Mm-hmm. xam nga di ko <laughs> gërëm bu baax parce que maa moom du tey. Mm-hmm. loolu lu yàgg la. ndeysaan ndeysaan waaw xam kontaan naa daal. Mm-hmm. kontaan naa trop. am na solo merci beaucoup amoon nañu plaisir di leen dalal ñun ñëpp ah kontaan ñu trop. ah sant rek waa ni mm-hmm. Patin sant rek laay mm-hmm. sant di sant mm-hmm. Cuq ak Patin. wax dëgg fa yàlla ndax koo xamante ni moom moo moo njëkk a lay. ki mo ñëk créer lay ay ca ki mo ñëk créer inventer nga togo ak ñom ci plateau lo lo santal yalla di ziar sama gaay wa ak club bu baaxa baax ada sama réalisateur ay ci bëgg non non mi ma andal di bëgg ñëpp daal merci beaucoup merci merci ciuku merci beaucoup donc euh, jaajeufal également euh, sama waji ciuku ndiak di bëgg wat sa way patin comme ni ko waxe sama sama sama amina longu dan la dafa yàgg sama dafa nooy yàgg ma nag ah, moom vraiment di kontaan di kontaan ci nóoreen mm-hmm. di nuyu bu baax a baax nag euh, Moulay nekk Noto ah, mm-hmm. Guy Jama le grand commerçant di bégg ci moom di béggee euh, merci beaucoup Thioub di kii bu baax xaaral ma bëggee ki ma mm-hmm. may puno sama puno doy toj ñu may <laughs> di nuyu ki nga xamante ni bii mooy. Euh, ah. Modou Gueye. Uh-huh. Modou Gueye borom moto borom. Ah, moto merci beaucoup merci beaucoup de la donc également qui jaar ci Couture donc Couture euh, Pape Moussé, hôpital Dominique merci beaucoup Tu t'es merci également l'équipe euh, donc sama caméraman donc euh, Ndiaga Sissé, merci beaucoup merci également Dembélé ak Djibi merci également Marie sama ah, toute l'équipe derrière à euh, ki Abou également qui Francis qui assistance bi bu